Jaringa, Bongo Jaringa, leen jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër Xaadim boutique bi nag li ko tax a jóg mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo duggee lépp li nga xamante ni da ko soxla sa biir kër da ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque say by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko garanti téléviseur de haute gamme dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour ñu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yéen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay chambre à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom la ñuy utiliser suñuy xeetu matériel moo mujjee xew ci àddina bi jógee la ci Amérique am nañ ay chaise lant muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni ñu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb doxee am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yi yow xoolal bu la neexee da nga koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American Shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil nañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fii coton cent pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon da ngay teg même pas vingt minutes mu jox la ndox bu sedd American soap waxoon naa la sànq ne boo jékkoo nga baale dërëman kuy saaga dañuy jaay ay vessel suñuy xeetu vaisselle yi ensemble am nañ ay filtre à eau am nañ ay tarmuus yu ànd ak robinet da ngay def sa ndox tijji mu daldi xel yi ah yow miy dawal moto ñun waa American shop sa kaaraange def ñu soxal moo tax ñu àndil leen ay casque original am sécurité jóge fële ci Amérique waa American shop ni ma usan insistel ci suñu matelas yi waa lu tax matelas gonflable la da ngay gonfler ba mu jóg nga nelaw ba yandoor boo paree daal di koy tëj def sa saak boo amee xew mën nga ko utiliser booy tukki mën nga ko yóbbaale kon sa màggal dina gën a neex boo ci àndee American Shop wax naa la numéro téléphone bi loo bëgg a xam adresse bi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi jàkkaarloog seen karo kër Xaadim man daal American Shop jaaxal nañ ma ñoom bàyyi wuñu